Gueye wala Balla Gaye di moytu kon tay mbir mi dina demee neneen mais li ça démontre que intérêt wu làmb bu ñëwee kenn ku nekk da ngay jël sa intérêt. sunu président tay nekk ni sama wet di Gris Bordeaux ñu koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu Balla Gaye di nuyu euh président bi muy Balla Gaye di nuyu le secrétaire général Fragier président d'honneur Khadim gadjaga euh nuyu Baye Mandione di nuyu Boy Niang

muy Boy Niang ma lay toog tey dafa def euh, semaine passée benn euh, lu xaw mel ni point de presse ñu bëri nag dañ ko interpréter nag que mooy mbëri ñii def nañ fi ñi def nañ non non non loolu amu si ñun la bokk si association bi la bokk kenn nekk tey am nga sa gox ba nga dëkk nga sant ñu wax leen nii leen làmb fii la toll Boy Niang si contexte boobu la ko si à sa ñu ngi ko si remercier bu baax ah, fi may ñëw nag mooy euh, di gërëm presse aussi que euh, on est ensemble ñu dem sans yéen comme nimo koy waxe rek da ngeen ñuy soxla dañ leen di soxla dañu woté wootee yéen ñew ñëw ngeen donc ñu ñew nak directement si euh, li ñu fi dajalé moy comme dañuy teunk moy ku nekk xam na ni pandémie bi am na accepté nañu ko coronavirus mu ngi ci dëkk bi nangu nañ ko mais ñun ay citoyens li ñuy wax ni tey suñu devoir la suñu doléance la aussi moy tay secteur yëpp ñu ngi bougé ñu ngi def seen activité ba mu des lamb donc tay nak li ñu dajale fii tey base bi deug deug deug do moy qu'est-ce qu'on va faire pour démarrer saison de la lutte sénégalaise moy première ambition bi moo ñu fi tay euh benen point bi euh tay pandémie bi am tay crise bi am man sama secteur sax la gëna frapper la gëna laal muy mbuur ndax ku ne xam na ni euh, émigration clandestine bi am li ci ëpp tay Mbour mo nekkoon point de départ bi man mi tay xamna ci mbeur yu bëree bëri bëri bëri yo xamanteni ni lañu jaar ñi yegg nañu yalla jël na seen bakkan kon man sama secteur la gëna a touché donc ñu ngi xaar nak état lan la wara def tay pour lamb pour sun secteur donc comme je suis le porte-parole donc damay ubbi euh, ku nekk tay am nga sa am nga sa xalat mais man limay wax rek moy tay ñëw ñu fi tay pour bras de fer ak état ou def violence ou forcer dañu ñëw en tant que ay citoyen parce que pandémie bi mu amé le président Guy Bordeaux dafa def benn acte noble dafa euh, waxtaan ak bureau bi yépp ñu jël suñu buuy ak suñu daqaar ak suñu suukar ak lépp teg ko ci loxom mu yóbbu ko jox ko ministre bi donc kon tay bu ñuy wax euh, acte acte citoyen tay kon mbeuri ñoo ci jitu kon nak il est temps état gestuñu ñu xamni ñun ñi tay kenn ku ci nek dafa am lu nek sa ginnaaw kenn ku ci nek nag da nga famille da nga jité écurie tay buñu ñu di wax peut-être du pour ñun mais dañu am ay xalé yu nek suñu ginnaaw yo xamanteni si làmb la ñu yaakaar ñu ci bëri ñi fi wax tay jot nañu combat man na wax ni ci jot avance complet wul ku ci nek da nga am lo jot rek ñu ne dama nga préparé di xaar xaar bi kañ la jëm xaar bi kañ la jëm. ak fan la jëm ak kañ la ñu kañ la ñu ngi janvier bu ñu démé mois fin d'avril, mai koor gi la juin juillet saison bi tej même bu ñu ubbi woon janvier tey saison bu gàtt donc mbeuri jëloon avance avant saison bi tej daw kañ lañuy bëré ak fan lañ koy bëré ah hein? donc lool nak actuellement dafa dafa metti dafa metti ji euh

gis nga ku bëgg a gis gor ku bëgg gis noble dëgg dëgg dëgg dëgg jàppal mbër parce que xam nga xam nga ñun ñi ngay gis nii dañuy demee suñu ngor demee sunu sac demee suñu sutura tey bi pandémie bi amee mënoon nañoo toog deux trois mois rek ñu commencé naan nañ ñu dimbale nañ ñu jàppale nañ ñu sarax mais ban bën nga dégg gu mu ne nañ ñu dimbale amul li ñu soxla xam nga mooy lan

boo gisee xale yu bëri tey di mbëkk di jël gaal yi mooy dañu manqué espoir seen dëkk te nag xale bu ndaw sax boo ko dàqoon tey muy reculer ba sës si miir bi day riposte tey boo nee xale yi nañ toog si dëkk bi il faut nga jox leen banc bu ñu toogee état nañ gën a créer ay emploi parce que fii li gën a métti nag mooy tey nga jàng ba mu sa yenn diplôme yi def demande fu nekk donc ñu rejeté la da nga naan man sama jàng lan la ma jëriñ. lancer un appel.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 Dakar instant lan leen laay wax na gars yi dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee bu ma yeewoo information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant.